il va falloir que nous xamante dafa wàcc dañ lay maintenant euh, maîtriser trop euh, son arrestation parce que certains disent que c'est en rapport avec peut-être euh, sa condamnation d'autres disent que non ce n'est pas en rapport avec ça parce que problème la peut-être avec un renseignement général maintenant le ak lu mu ci am hmm. Sénégal la justice loo xamante ni nit bu ko defee ñu teg ko ci yoon dañ koy teg ci yoon loo xamante ni ku deful dara rek dañ ko bàyyi mu doxee ay soxlaam. Mhm. mais quoi qu'il en soit mooy que ñun ñëpp nous savons très bien que Ousmane Sonko il doit quand même aller purger sa peine comme tout le monde loolu mooy dëgg. bu fekkente ne dañuy condamné nit te du mën a du purger penam. Mhm. su boobaa mboolem keneen bu ñu li ñu jot a purger ñi ñu jot a condamné ñëpp dañ leen génne. ñu dem doxi seeni soxla mais aussi bu ñu fi condamné ti kenn kon parce que am na ko ñu condamné te purgé wul penem loolu du dëgg yoon dafa war a purgé penem comme tout le monde xam nga lan la mhm. président Macky Sall dafa gore ne nit ñi du def troisième mandat mooy dëgg mhm. ñëpp apprécier ko ñëpp applaudir ko mhm. Ousmane Sonko na ànd ak ngor dem dugg ci biir kaso bi tëdd fa pendant deux ans parce que dañ ko condamné pendant deux ans après su génnee. Hmm. suy waxaat Sénégalais xëy na danañ ko déglu loolu moo ci suma réaction. mais fi toll nii lan nga mën a expliquer kan moom lañ ko jàppee ndax condamnation bi la wala ndax ni mu am différent ak benn benn benn enseignement moo tax ñu teg ko loxo. waaw xam nga c'est pas encore clair. je hmm. voudrais pas ma aventurer aussi loo xamante ni xëy na maîtriser ñoom communiqué guñu pour voir exactement le pourquoi ñu jàpp ko de toute façon lu si mënti am. Mhm. ci kanam tuuti dana leer parce que euh, gendarmerie bu fekkee dañ ko jàpp compte tenu de sa condamnation ak euh, digganteem ak Adji sar dana dem en prison su fekkente ne leneen la beneen renseignement général la amal problème ba tax mu demee nii c'est parce que donc gendarmerie dana ci def audition aussi loolu lu mu ci mënti am sénégalais danañ ko xam. Hmm. mais ban lu ci ban la ci doon gendarmerie communiqué gu ci donc puisque communiqué gu ci on ne voudrait pas ne nangam bii moo tax alors que demeewul noonu vous m'excusez mais li leer ba leer mooy ak lu mënti am képp koo xamante ni da nga wàcc yoon dañ la war a tegaat yoon parce que loolu mooy dëkk. mais la manière muy euh, anam bi ñu ko jàppee est-ce que. comme am nañ différent ñom ñaar xëccoo am ci jox ma téléphone beeg da nga ci bir ma image yi est-ce que mënu loon am benn procédure bu mu topp mais rek jàpp ko coûte que coûte noonu est-ce que tamit loolu mënul créer waat aussi beneen tension en tout cas politique. mais c'est pas parce que Ousmane Sonko c'est un homme politique. Mm-hmm. qu'il se permet mhm. de euh, un gendarme sañu ma dem téléphone filmer Il un téléphone renseignement général filmer Ousmane Sonko qui il est un renseignement général filmer téléphone téléphone a. Mhm. alors qui il est un un homme fait partie des forces de défense et de sécurité téléphone mais quand même mais, mais, mais Ousmane Sonko, qui il, s'apprend se prend pour qui Ousmane Sonko, il n'est pas le président de la République. Il n'est pas une institution dans ce pays. C'est juste un homme politique comme Yenen, comme Yenen, comme Yenen Il est juste sociable comme Yenen Yep. Mais pourquoi, il doit se permettre de faire Après, il y a des gens qui ont fait au vrai sens du terme, qui ont été défendre, n'y ont pas de l'attaque, réunis de défendre. Mais attends, réunis, ils ont été pas de l'attaque. Mais vous faites qu'un réunis de l'attaque parce qu'ils ont des question, mais qu'il en soit ainsi. Ne réunis pas de l'attaque, ñu ñëpp ñu bokk ci yam mais ñu xam ne carrément la justice a été rendue au nom du peuple gis nga bu xasee ba prononcé li muy prononcé mais dañ ko war a exécuter ak lu ti xew. xëy na peut-être ñun Sénégal des nañu maîtriser la procédure de contumace xamuñu nan lay demee parce que c'est la première fois xëy na ñu àtte nit ci wàllu mm-hmm. mais lu mel nii bu demee nii mais dañ ko war a exécuter soit le temps que ça prend soit ak lu si am mais dañ ko war a parce que loolu muy dëgg parce que am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi en prison dañ leen condamné juge décerné leen mandat ñu dem jëli leen Mhm. Ousmane Sonko il est justiciable comme tout le monde et il n'a pas le droit ak lu mënti xew que nga da ngay dem nga ne yow day confisquer le téléphone de de de de de quelqu'un qui fait partie des forces de défense et de sécurité am na ci loo xamante mais yàpp yàpp sénégalais yi la am na ci loo xamante mais yàpp institution de la gendarmerie la am na ci loo xamante mais yàpp sa askan la yàpp les institutions de la république la loolu mooy dëgg li mu def nii man sañu moo ko yow sañoo ko keneen sañu ko léegi lu tax moom mu war ko sañ te un citoyen comme tout le monde amul dara lu ko protéger loo xamante ni naa tax mu war a mën a doxalee ni muy doxalee ku wàcc yoon nañ ko tegaat ci yoon te nit ñi àndoon dafa wàcc yoon loolu mooy dëgg mais naafeq dëgg mooy nit wàcc yoon ba pare nga bëgg taxaw ne lii muy def nii ñoon la nañ ko bàyyi parce que buñ ko jàppee wala buñ ko defee nii réew na fekkee ba tax na tu te permets loo neex nga bëgg ko def mais du dëgg du yoon lii dëgg mooy que nañ ko tegaat ci yoon mu xam ne il est justiciable comme tout le monde loolu Euh, mais est-ce que buñ ko tegaatee ci yoon buñ ko jàppee euh, ndax du indiwaat beneen procédure ci digganteem ak Adji saar ndax su boobaa peine bi dafay anéantir su boobaa aussi tamit beneen procès mën na amaat euh, libération définitive wala boog acquittement définitif pure et simple mën na si daal di juddoowaat wala yaakaaroo loolu. mais xam nga peine ferme. Mhm. dañ koy exécuter. Mhm. buñ la condamné par contumace dañ la may temps pour nga constituer wu en prisonnier. Mhm. obien bien tu te prisonnier. bu dul loolu sa délai bu jeexee dañ lay dem ñu cueillir la pour ñu cueillir la nag dafa am fu muy jaar. Mhm. juge dana dana dana décerner décision décision boobu noonu danañ ko jël jox procureur procureur danañ ko jël déjà yóbbu mu dem impôt et domaine bi nga xam ne foofu la son localité nekk. Mhm. danañ la ko affiché également ci sa buntu kër mais danañ la ko également affiché au ministère de l' pour que ñu radier la ci li nga xam ne mooy les listes électorales. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. buñ ci jógee maintenant le juge nag léegi doo ko décerner li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, mandat d'arrêt mandat d'arrêt bi mm-hmm, du dëgg su ko décerner ba pare mu jaaraat ci procureur procureur signé moom itam ba pare yóbbu mu dem ci les forces de défense et de sécurité ñooñu ñooy exécuter mandat d'arrêt bi donc dafa am procédure bu gudd mais le pourquoi le pourquoi ñaata xalifa Sall mais dañ ko téye yóbbu ko ci biir kaso bi mu dem tëdd penam ci ngor Barthélémy Dias dañ ko mu dem tëdd penam ci ngor Idrissa Seck tey woon nañ ko fi mu dem tëdd penam ci ngor Khalifa euh, Karim wadou tey woon nañ ko fi mu dem tëdd penam ci ngor léegi le pourquoi buñ tey Ousmane Sonko dëkk dafa fort tak au nom de quoi c'est la même justice bi nga xamanteni ñom mom lañuy réclamer cette même justice Bob mom moko condamné même justice bi ñi wax ne justice Bob dafa wara a tëddee même justice Bob moko condamné même justice bi nga xamanteni ñom mom lañuy réclamer tous les jours pour qui que ce soit pour tout le monde même justice Bob moko condamné même justice bi nga xamante ni moom moo validé li tax moom mu nekk maire moom Ousmane Sonko même justice boobu moo ko condamné boobu condamné na la nga ne doo tëddi parce que loolu bu ñu la nee nañ dëkk bi dafay tàkk. mais bu fekkente ne le Cheikh Yérim Seck waxoon bu nekkente ne dañuy téye Ousmane Sonko ñu jaarale ko ci yoon teg mbir mi ci yoon mu jaar fi mu war a jaar ñu bu fekkee dañ ko war a jàpp ñu jàpp ko bu dee koy libéré ñu libéré ko te juge bi dafa prononcé ne dafa am man dafa dañ ko dafa dañ ko condamné pour deux ans ferme deux ans ferme boobu daf ko war a dem tëdd léegi nag. ndax suñ su constitution en prisonnier wala ndax buñ ko jappé da fay anéantir la procédure lolu loi mom moko prévoir hmm. mais bu dé da fay anéantir la procédure aussi nañ ko japp mu dem teud bu anéantir la procédure ñu recommence encore procès mais li leer ba moy lolu loi mom mu ngi dox hmm, hmm, loi mi ngi avancer loi mi ngi dox su fekkee buñ ko jappé mu anéantir la procédure c'est parce que loi mi ngi dox mais nañ ko japp mu anéantir la procédure ñu delluwaat tribunal bu ko condamné wat ñu condamné wat ko buñ koy libérer ñu libérer ko mais en tout cas li nga prononcer nako daf ko war dem tëddi lolu moy mooy dëkk Mhm, keneen ku waxul lii wax nga mhm. lan la neex mhm. keneen koo xamante ni maanaam yaa ngi far Ousmane sungu ci lii mu nekkee c'est parce que maanaam da nga da nga topp di wax li la neex ak far ak moom moo tax mais bëggoo lii dëgg lii dëgg mooy dafa war a dem purger ci penam comme tout le monde jërëjëf ma daaneel sama kàddu ci ne ou bien ñu libérer Ousmane Sonko libéré waale mboolem kuy prisonnier ñu tëj ci kaso yi ku ne génn ñu tëj kaso yi kaso bañatee am ci Sénégal ou bien ñu maintenir ñu nekk ci kaso yi maintenir leen ku nekk purge sa peine te Ousmane Sonko dem purge peine am comme tout le monde lii mooy dëkk. Mhm, jërëjëf maa ngi de l'occasion ak seen mhm. donc di souhaiter anniversaire à Mame Marie Momoulé. Mhm. ñaanal leen ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàmm ak xéewal ak sutura. donc may ko gudd fan yàlla na suñu yokk leen yéen ñëpp. ba yegg fu kawe kawe kawe. je vous merci beaucoup jërëjëf euh, Abdou Aziz euh, nekk responsable APR euh, allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax ñu lay ziar. jawrin ñu ngi delloo ziar ba nga nekk si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. man daal maa ngi fo région.